Mayoro Faye ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay di la nuyu bu baax. may fàttali suñu auditeurs yi ne ñoo ngi dalal tey secretaire national chargé de la communication bu parti démocratique sénégalais euh, coordonné tamit fédération départementale PDS bu Saint-Louis Mayoro tey ji euh, ñuy wax ne PDS day dooraat wala sax day tàmbaliwaat li nga xam ne mooy activité mi gannaaw ba mu ko suspendre euh, weeru mars ndax coronavirus bi lu waral ngeen jël moment bi pour tàmbaliwaat di di liggéey gi. waaw Elisabeth Diatta maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu sa auditeur di wax rek ne euh, kenn umpalewul ne euh, dañu nekkoon ci benn situation bu bette boo xam ne kenn xaaru ko woon muy ñëwu coronavirus ci Sénégal. Mm-hmm. depuis le 2 mars. te balay loolu doon nañ ko dégg ci réew yi ci euh, bitim réew mu doon loo xam dañ ko doon suivre ba ba muy dugg Sénégal di am premier cas. Mm-hmm. ci loolu nag. ci ñetti fan lañ ci teg président Abdoulaye Wade mi nga xam ne mooy secrétaire général national PDS ngir aar militants yi aar sénégalais yi ak it ngir bañ ay activité parti bi bokk ci liy lawal euh, feebar bi si réew mi mm-hmm. mu génnee benn communiqué le cinq mars pour wax ne na PDS suspendre ay activité am yëpp ba ñu xam fan la jàngoro ji toll ak fan la ñuy mujjeeg moom laataa ñun ñuy bokk ñi nga xam ne ñun ñoo koy propager di ko yaata mm-hmm. loolu moo waraloon bu yàgg ba tey à part ci jur ci weer yi mars ba léegi avril mais juin juillet août ba septembre bi ñu dugg gis nga ne à part les affaires courantes PDS deful benn manifestation boo xam day dajale mbooloo mhm. bi ñu demee nag ba nga xamee ne ca weer wala ñu paase mhm. ëpp na weer léegi ak genn wàll président Macky Sall ci boppam wax na ne na Sénégalais yi ah jàng dund ak virus bi ah, taxul sax ñun ñu reprendre suñu activité parce que am na ñu ko partagé ak ñu ko partagé waaye président Abdoulaye bëggul woon jël benn risque ak mbooloo mi mu àndal mais bi ñu demee ba nga xam ne nag léegi mel na ne sénégalais yi ñu ngi tàmm jël seen matuwaay ñu ngi tàmm xam nan la ñu def ba moytu feebar bi mhm. te it euh, politique moom euh, am na ci à chaque fois ay urgence yoo xam dañ ko war a régler te parti politique dafa baaxoo dund ci la jël beneen bataaxal wax ne def na levée partielle suspension bi mu defoon ci wàllu activité mën nañ ko tàmbali waaye nag nañu respecter les mesures barrières Mhm. loolu mi ngi tàmbali démb ci altine ji di 21 septembre. ba tax na sunu structure yi nekk ci réew mi ak ci bitim réew ci diaspora bi fépp fu mu doon muy structure horizontale wala structure verticale ak mouvement de soutien à Karim Wade yi ñëpp. Ah, dañuy tàmbaliwaat seen ay activité ah, te activité yooyu itam dañ koy yaatal ci kenn ku nekk gox ak goxaan bi nga xam ne foofu nga fekk. Mhm. tey way waaw tey am na ñu ne euh, seen i ñooñ ñi nekkoon parti démocratique tey euh, nekk ci beneen parti muy ànd suqali soppi euh, seen i activités yi ngeen gis moo menacé tey ji PDS ba mu tàmbaliwaat activité am ndax am na njàkkare ci ñu jël seen i ñooñ ah Elisabeth ñooñu bëgguma woon sax di waxaat si seen waxu politique ak di tontonteeg ñoom ndax de toute façon bokkatuñu ak ñoom agenda politique ñoom dañu créer parti bu bees boo xam ne bokkul ak PDS ci ñun ci PDS la ñu ne may bu fàttali rek ne euh, boobu ñuy euh, suspendre activité yi fekk na président Abdoulaye Wade génne woon circulaire buy wax ne dañuy jaay kart buy wax également que nan lañ koy jaayee ak itam désigné woon nañu ay commissaire ak ay superviseur pour fépp ci rew mi ak bitim réew uh-huh. ñu tàmbali jaay carte parti waaye bi suspension bi ñëwee xam nga ne ku ne suspendre ay activité doo jaay carte circulaire boobu responsable PDS yëpp amee woon nañ ko ca date yi ci newoon ci mars la woon. Mhm. yëpp avril. donc kon bu ñu nee dañuy reprendre sunay activité dañuy reprendre également opération jaay carte yi ci réew meeg bitim réew. loolu jotewul dara ak keneen ku jël décision bu mu mën doon ci beneen parti mhm. kon muy waa suqali muy ñeneen ak ñeneen amul kenn koo xam ne la ngay def dana influencer ni PDS di def ba tax na PDS dafa suivre rek agenda naturel bi nga xam ne daf ko tëraloon ngir doxale ko parti parce que parti bu yàgg mën a doxal la donc euh, loolu daal laa la mën a tontu ci wàllu woow ni ma ko laajee. Mhm. voilà donc euh, jëm ci wàllu sunu activité yi nga xam ne incha allah tàmbali waat na. troisième mandat euh, tey coow li newaat na cour dégg nga ci kii nga xam ne moom mooy président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ñi Gningue moom nee na juridiquement kii di ki Sall mën na ko baba Babacar Gueye tamit ci suñuy onde am na lu mu àddu jëm ci mbir mi tey ji lan nga xalaat ci kàddu yooyu. waaw xam nga maanaam ñooñu ñëpp dañuy ñemeel. président Macky Sall rek pour mu xalaat ci boppam wàllu troisième mandat. Euh, ay meeru ñinga président groupe parlementaire la. c'est-à-dire dafay symboliser la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Mhm. jàpp naa ne waroon na am sago ak euh, le sens de la mesure ak euh, détachement ba buy wax ca dañ ko invité ci li mu doon député. Mhm. mu wax waxu député wax waxu parlementaire wax waxu problème yi fi ne waaye bañ a jël engagement bu toll ne. di sàkkal président Macky Sall ne am na euh, possibilité juridique pour am troisième mandat dafa mel ne kon loolu nekkatul moom à partir du moment ay Aymérou wax ko mhm. ne ñëpp jàpp ne Aymérou du n'importe qui dans le dispositif de Macky Sall et que bu ko waxee ça veut dire que ni euh, majorité bi nga xam ne ñoo nekk assemblée nationale loolu la ñuy xalaat parce que ci seen tour lay waxee leneen li ci amaat itam mooy kon euh, idée bi mi ngi circuler ci biir APR ak ñi nga xam ne jàpp nañ ne tant que président Macky mi ngi fi seen mbir dana baax mhm. ñooñu ñëpp kon ñu ngi koy ruumandaat di ko waxantoo di ko wax waaye jàpp naa ne. Mhm. Euh, fam ka waxee du waxukaay ba ci it ka ko waroon wax moom waroon na ci bañ a bokk le temps que ñuy xam fan nañ jëm. Mhm. mais comme que wax na ko aussi danañ jël at. li ma ci jaaxal rek mooy comme euh, keneen ki nga wax muy le président Babacar Gaye mhm. euh, le fait que moom it mu wax ci di wax ne que ni ci constitution bi dafa am benn cheval de de trois cheval de de de trois boo xam ne dafa nekk ci biir constitution bi buy ubbil buntu président Macky Sall pour mu wax waxu troisième mandat. Mhm. dama jàpp ne loolu itam ñun seenu ñu ko woon ci moom. ndax opposition itam dafa am taxawaay ndegam ñu nekk ci majorité am na ñoo xam ne koo ci wax waxu troisième mandat ba am na ñoo xam ne tax nañu baax leen ki ñi APR lañ bokk ñii bokkuñu APR waaye benn bokk yaakaar lañ bokk nee ñu président Macky Sall mënul am troisième mandat. e que moi je pense que façon éthique. de mhm. façon amul tey benn leader politique bu war a taxaw jàkkaarloog sénégalais yi rek di wax ne troisième mandat war na mën a am fii ci Sénégal ak ci lu ñu jaar rek lu ñu jóge mhm. donc moom li may bett rek mooy mu jógee ci moom muy wax ne am na fenêtre wala porox ndoll wala cheval de trois boo xam ne day tax président Macky saal xalaat troisième manda loolu xaaruñu ko ci benn euh, membre société civile wala membre opposition wala sax membre mouvance présidentielle boo xam ne bi bàyyi nga xel dem bu xeex bi fi amoon ak taxawaay bi fi amoon pour que Sénégal désormais comme ni ko président Macky Sall waxee bi mu defee constitution ba pare ne bu affaire u troisième mandat moom définitivement réglé nañ ko fii ci mhm. Sénégal mbaa daa am loon jot ci kàddu yooyu le waaw dama daf may tiital rek ci may xalaat opposition yi ñu am mooy yan opposition mhm. ak ban opposition la ñu am. mooy lan est bu fekkee ne opposants yi dañ dem ba léegi ñoom ñooy ubbil boulevard ki ñu jàkkaar loolu muy président dana tax ñu nawloo ñu ñu nekk opposition. nan nan laa mën a déggee sa kàddu yooyu ndax amatul opposition tey ji wala dafa am opposition buy xàllil euh, mi. opposition du mës ñàkk Sénégal. parce que ñun ni ñu taxawee ñun PDS nekk ci am na parti yu bëri yeneen yoo xam ne noonu la ñu taxawee euh, di xeex. ci opposition ba ku leen gis xam ne ñii opposition lañu mais terewul nag à chaque fois pouvoir ku mel ne président Macky Sall dafay am ci biir opposition ñoo xam ne ñoom lay jëflanteel. kon daam ñu koy liggéeyal daal. new ma sañu ma euh, dama leen di nawloo du ma wax ne dañ koy liggéeyal parce que nit ki sa nawle aussi doo ko teg tuuma mais li ma jàpp rek mooy seen doxalin daal ak seen discours dalalul suñu xel te dalalul xelu destu opposition bi ba tax na. Euh, Euh, yenn déclaration yi buy jógee ci ñoom day tax ñiy posé wu la question de savoir ñaata opposition moo am Sénégal ak ban opposition moo am Sénégal donc euh, ñooñu dañuy am dëgg te bu ñu sañoon ñun ci wàllu PDS bi ñu féete ak yeneen parti yi nga xam ne ñoom dëgg-dëgg ñu ngi ci opposition bi di dëggal seen bopp. ñu mm-hmm. wane ne ni pouvoir amee noonu la opposition amee te ñun ñëpp li ñuy xeex ñun ci waa opposition bi mooy lépp jaar yoon ci wàllu doxalin. ak ci wàllu taxawaay ak ci li nga xam ne réew mi ñëpp ñoo ko bokk. Mhm. Mayoro Faye ñu wax ci mbënd mi euh, mënuñoo bañ a wax ci loolu ndax tey parti démocratique sénégalais am na action bi nga xam ne euh, daal dina ko entamé ci assemblée ñoom li ñuy ñaax mooy ñu auditer plan bi euh, tey ji gis ngeen tamit la xew ci assemblée ndax am ngeen yaakaar action boobu ñu tàmbali dina leen jox li ngeen bëgg. waaw Elisabeth ku am dégg-dégg di sax xam ne président Macky li mu. waxoon ci conseil de ministres di wax ne nañ ko defal rapport détaillé wu programme ak projet yi ñu ci doon taxal taxawal yëpp pour mhm. xeex mbënd mi muy inondation yi mhm. war na tax euh, euh, euh, majorité bi à l'Assemblée nationale sax ubbi woon li ñuy wax session extraordinaire waaye donte la defuñu ko ñu waa PDS dañu mhm. ñaanoon suñu groupe parlementaire bi pour ñu wax bureau Assemblée nationale nañu convoqué rapidement benn session extraordinaire boo xam ne dafay mel ne li fi defoon en 2010 jamonoy président Ablaye Wade. Mhm. nga xam ne moom moo yoroon gouvernement nekk président de la République yoroon inondation amee dañu convoqué ay ministres ñu ñëw wuy si à l' assemblée nationale devant la représentation nationale pour wax ak askan wi lan lañ def ci inondation lan lañ ci nar ak fan la ñu fas yéene jëm lépp ñu leeral ko foofu. Mhm. parce que loolu moom mooy rôlu euh, assemblée dafa war a def li ñuy wax euh, contrôle de l' action gouvernementale. loolu bi ñu leen ko demandé nag ñoom dañu bañ. ñu ñun suñu ay ministre duñu leen woo assemblée nationale di leen laaj ci wàllu mbënd mi donte la ñoom ñoo ko doon gérer depuis huit ans ci plan décennal bi hmm. ñaari at ci des te wax ne six cent soixante sept milliards def nañ ko ci loolu lépp leerul ci boppu Macky Sall leerul ci boppu député leerul ci boppu askan wi leerul ci boppu sinistré yi nga xam ne ñu ngi ci jafe-jafe fépp ci réew hmm. donc bu ñu bañee ne ñoom du ñu wootee ministre yi nga xam ne ñoo ko ŋànk pour ñu mën a leeral askan mi loolu dama jàpp ne euh, manqué nañu ci élément bu fondamental nekk ci préambule constitution bi muy la bonne gouvernance ak la transparence ba ñu li ngeen li ngeen soxla wala sax li ngeen bëgg li ngeen namoon ci ñoom tey ji dafa am leneen li nga xam ne euh, fas yéene ngeen ko def maa ngi dégg sax ñu ne benn bataaxal ngeen di jébbal njiitu réew mi waaw xam nga loolu àggaguñ ci mais terewul ba tey ñi nga am yaakaar ak yéene gis waa majorité bi ñu xam ne li war a am mooy ñu convoqué session extraordinaire ministre yi leeral Sénégalais yi. Mhm. ba tax na loolu xàddiwuñ ci. wuñ fi euh, ndax ñoom nee nañu dañuy def mission d' information mission d' information bu demee aussi di def six mois di wër ñamuy laaj ñooñu amuñu responsabilité directe ndax dañ leen di jox ay ndigal rek. li gën a gaaw mooy ndeyu mbill yi nga xam ne ñoom ñoo yoroon budget yi di ko exécuté ñu ngi fi nañ leen woow ñu wax lan la ñu exécuté lan la ñu exécuté wul lépp ñaata la woon ak lan lañ ci réaliser lu ñu réaliser ko lan lañ bëgg def ak pour situation urgente bi yan solution la ñuy préconiser. Mhm. loolu yaakaar naa boo gën a logique moo gën a cohérent mais comme que ñoom dañuy politique politicienne rek euh, ñu ne dañuy convoquer ministre yi dañ ne dañuy def simple mission d'information ñun ànduñ ci lool ci rafetluwuñ ko. Euh, terewul nag euh, xàddiwuñu ci yaakaar ne seen xel dana dellu si ba ñu def li nga xam ne moom la askan wi di ñoom ndax askan wi sonn nañu. <laughs> tey jii ci tontu yi gis nañu taxawaay gi ci gouvernement taxaw ci wàllu mbënd mi ci yenn gox-goxaat yi bokk na ci renforcer dispositif sapeur pompier yi ak it ñu annoncé ay projet yu ci mel ni départementalisation Kër Massar nan nga jàngatee yooyu. waaw euh, soxna si départementalisation Kër Massar lan la jotee ak inondation Kër Massar yi nga xam ne ay junni junni nit ñi ngi ci ndox bi ñii ñàkk seen alal ñii seen kër yàqu ñii seen mateelu kër yàqu ñii seen dund bi ñu jëndoon yàqu ci ndox mi ñii seen liggéey doxatul parce que mëntuñu liggéey loolu lu mu jotee ak départ départementalisation nga xam ne c'est une décision administrative. Mm. boo xam ne sax processus la du lu ñuy xëy décréter ko rek mu taxaw dafa laaj leneen ak leneen dafa mel ne diversion quoi dafa mel ne. ah dañ lay wax si lii ngay wax si lee. ñu ne guy ga nga daxaar ga noonu nga gisee noonu lañ jàpp non loolu lañ jàpp. dafa mel ne ñu ne guy ga nga ne daxaar ga. tey lii urgence su Kër Massar ah néew ma départementalisation baaxul de mais li urgence su Kër Massar mooy ci jooni jooni bii nan la ñuy def ba nit ñi ndox mi génn seen kër nan la ñuy def ba jël ay décision yoo xam ne day tax beneen yoon bu euh, euh, nawet ñëwee inondation du am Kër Massar. yan moyen yu conséquent la ñu fas yéene jël jagleel ko Kër Massar ak Ndar ak euh, euh, yeneen dëkk yoo xam ne Kaffrine ak euh, Joal ak Touba ak feneen ak feneen foo xam ne inondé na. Mhm. ba bu ëllëgee inondation du bu bu amee it du gaañ du lore. ndox bu bëree itam inondation du am. Mhm. loolu moom mooy tey yaakaar naa waxtaan waaye pas ay politique xëcc fee taf fee ne président Macky Sall dafay dem seeti inondation mu ñëw takku a tooyu ca. sol costume am ak ay chaussures de bilam yam fële yam ci sapeur pompier wax ak ñoom wax ak maire bi wax maire bi wax ku ne wax population yi gisuñu ko rawat na cent quarante quatre délégué de quartier yi nekk Kër Massar soxla woon ko pour waxtaan ak moom population yi ñu téye leen ñi waroon xëy xëyu ñi ñi waroon yóbbu malade mënuñoo génn ñu bloqué leen mu mel ne dañ nekk ci blocus pendant toute une journée pour koo xam ne nee na yéen la seet si te du ngeen gisee ak yéen euh. doon benn show boo xam mënoon na yam ci euh, groupement sapeur pompier waxtaan ak ñoom ca caserne ba ba la euh, au lieu muy dem Kër Massar dem boo xam ne finalement dafa porter préjudice population. yow daal jàpp nga ne mënoon na ñàkk politique rek la mënoon na ñàkk. te itam li am maanaa ba am maanaa du ay déclaration mais ay actes yu pragmatique yoo xam ne dañ koy jël sur le terrain pour que rapidement ñu am solution par rapport aux inondations. Mayoro Faye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi lay sant di la merci beaucoup.